mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Sénégal set di leen dalal ci jotaay bi nga xam ne moom lañu ñu jagleel wàllu wérgu yaram ñu faral di ci ànd ak docteur Abdoulaye Diallo di naturopathe émission bi weesu nag jot nañu waxtaanee lu jëm ci wàllu siti ndoxu siti bi yoon nag dañuy waxtaane lu jëm ci wàllu hémorroïde mu wax ñu lan mooy jàngoro bi traitement bi nga xam ne moo ci war ak efficacité bi nga xam ne moom la leen di proposer ci paj mi nga xam ne moom la leen di defal ci njëkk yu yomb docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Coulibaly Zeylani Abdul Khadr maa ngi lay ziar bu baax. di ziare diine bi nekk ci yow di ziare nite gi nekk bi ma gis ci yow. di ziare yar bi ma gis ci yow. Mm. di ziare Pape Ngagne Diagne borom kër gi di ziare Mbop. di ziar Yash sama xarit sama frère sama petit frère la di ziar équipe bi yëpp di ziar aussi sa téléspectateurs yi di ziar junior aussi tëb naa junior voilà euh, di di baalu ak ñëpp ñëpp ñëpp waaw surtout ci ñi nga xamante ne dañu sonn ci man bëgg ma lool lool lool lool lool di ma safoo te mënuñu fexe ba jot ma xanaa ñu jaar ci facebook bi rek euh, Diallo Abdoulaye Abdoulaye dañ ma gis foofu Diallo Abdoulaye Abdoulaye mhm. wala ñu dem ci sama page officielle bi docteur Abdoulaye jàllo waaw foofu peut-être euh, yenn saa yi man maa fay tontu mhm. attention waruma koon sa wax sax parce que euh, tam léegi-léegi ñeneen ñi encore créé ay page quoi <laughs> jël photo yi créé leen page moo tax fu wóorul daal mhm. waaw mais de toute façon on est ensemble daal. accord d' accord jërëjëf docteur ni ma ko waxee sànq émission bi ñu weesu ñu ngi waxtaanee woon lu jëm ci wàllu ndoxu siti bi la yoon nag dañu dugg ci hémorroïde. Mhm. hémorroïde mooy lan docteur. merci Coulibaly euh, hémorroïde feebar la bu lëmbee àdduna. Mhm. bu lëmbee àdduna bu lëmbee Sénégal parce que les gens mangent mal. et puis on a une alimentation pauvre en fibres yàgg naa di ko wax li koy indi mooy biir bu tilim mhm. di seere li koy indi mooy colopathie mhm. damay ree parce que déglu naa benn émission benn waaye boo xam ne je crois qu'il était très bon médecin mhm. di naan hémorroïde day indi seere déedéet seere mooy indi hémorroïde donc sëriñ bi du noonu hémorroïde c'est la résultante de tous les maux de ventre de tous les maux j'ai pas dit de tous les maux cest à toute la saleté mm-hmm. biir buy tilim doo ko mës a raxas muy seere mm-hmm. booy seere ni ngay pousser mun na la jox hémorroïde. da lay gaañ maanaam. waaw bon hémorroïde c' est c' est ay fibre la. d' accord des fibres hémorroïdiennes nekk ci nit. dañuy sol ndox wala di sol dëdd wala di sol salté ci biir la nekk diggantam nag ak anus bi hmm. ginnaaw jumbax bi. ba ci anus bi foofu la nekk bu fa nekkee ñu naan hémorroïde interne sax moo gën a bon boobu di ñuy naan externe muy génn ñu koy dugalaat boobu garaawut kon ñaari façon la ñett ñett bari na sax hmm. Hmm. ñaari la ñu gën a faral di wax de man am naa man am naa benn hémorroïde boo xam ne du interne du hmm. fu muy féete boobu <laughs> ci biir bi rek c'est que man yàpp rek laay dundee bugguma lu dul yàpp donc nag lépp du génn day condensé fii ba parfois damay saw lu bëri ba parfois damay fa ne prostate laa amee ba parfois su ma yeewoo sama yaram day diis moo tax toujours mes premier clients dañuy souffrir parce que su ma yeewoo moom deux heures temps yi ci topp moom bu ma bu ma nuyu ça s'énerve quoi waaw ça s'énerve <laughs> léegi nag ça va quoi hmm. balaa ma ciy dugg sax may ñaax bépp mm-hmm. sénégalais boo xam ne bëgg nga ma safoo nga ma nga may defal ay suuratu diilaa fi Qurayshin rek def ko def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa si ñaanal tàngoor bi mu wàññeeku mm-hmm. loolu rek laa ñaan nit ñi en parlant de diilaa fi Qurayshin tey ma jox ko waa Sénégal yëpp billahi lii dafa Qurayshin boo ko tàmmee mm-hmm. boo ci dëkkee boo defee ni ma lay wax ni doo banque doo manqué or bu dee commerçant doo manqué client bu di liggéey nga ut doo ko manqué doo manqué yére doo manqué ration doo manqué ay terrain waxuma la nag ay kër ay terrain hmm. doo manqué ay xar doo manqué ay béy doo manqué nit ñi la respecté doo manqué ay liggéeykat doo manqué ñu lay jox respect doo manqué doo manqué aussi ñu lay jox valorisé pas alal wu wu wu quoi hmm. mais comme tu bien tu ne manques de rien hmm. loolu loolu sax alal la sans lii laa ku koy def nga jël weer bu ne nga def ko quatorze fois gis nga quatorze mois la lii laa fi mu ngi ci loxo gis nga fii ñaari kolon la mhm. fii trois kolon la fii trois fii trois fii trois ça fait quatorze deux cinq mhm. huit onze quatorze wala nga ne trois six neuf douze treize quatorze gis nga lii laa fi lii laa fi xorachin إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف et à 80 mois. L'image de Dieu, c'est toi. du lii mooy Allah. Mm-hmm. boo koy ñaan c'est Wahhab ci ci demande au au donateur lim yaa ngi ñaan mu ngi nii Allah Wahhab léegi nag fii aussi 14 la ça fait 28 ça fait le cycle de la femme même. Mm-hmm. ça fait même Touba. Touba 28 la 14 14 moo tax Touba jëf jël da ngay joxe adiya pour am jëf jël ku dul joxe doo am 14 yi par exemple même règle ma nee naa la même jigéen du ëmb lu dul 14e jour 13 14 léegi fii 13e bii gis nga 3 6 9 12 13e bii bu bëri ay trait ça veut dire que tu es très féconde au jour bu amul trait nag. bii rek moo ci gën a fës ça veut dire que tu prends la grossesse aux douze dernières heures du treizième jour et aux douze premières heures du quatorzième jour lii jàng nañ ko euh, école xanaa tubaab rek moo moo war a xam cest à nit ñi il faut ñu yow quoi hmm. qui se connaît connaît Seigneur chaque mois nga jël quatorze jour nga def lii il a fait Qurayshin cent fois bis hmm. nag bu ma gisee ak borom dinaa ko waaye pour le moment lii la billahi ku dëkk ci lii daal bu la neexee doo génn sa kër lépp lay fekk si man de lépp may fekk si man lu ma soxla mu fekk si ma man su ma gisee naa daf ma neex yàlla xam na ko man benn richesse balaa may naan ni ñi ñëw leen ma defal leen benn richesse trois cent cinquante mille man maa njëkk riche wallahi sama bopp laa njëkkee te du ma génn sama kër benn richesse nag nit ñi dañuy indi seen trois cent cinquante mille man joxewuma parce que tout le monde n'est pas appelé à être riche su xam ne kàccoor nga yi topp pour la pour la a defal loolu man damaa manqué trois cent cinquante mille je préfère man nit ñëw ne ma sang ma cat mhm. que sang ma cat maa ko fi dàq sang ci adduna àdduna waxuma sax senegal mhm. sept garab cat yëpp laa lay mélangé te trente cinq mille kese ngay fay ah docteur barke na mhm. te man dama gis sax garab cat boo koy sangu da ngay ubbeeku loolu rek doy na looy doy benn richesse nit di yàkkamti wërsëgam boo yàkkamti hmm. mais nga njëkkee cat bi quand même pour aar sa bopp on parlait des hémorroïdes nee naa la colopathie day indi hémorroïde colopathie man mii menn menn menn menn maa koy faj fii ci Sénégal moom muy fonctionnel muy fonctionnel muy chronique benn yoon ngay naan garab bi 15 mi ngay fay jeexal nga loolu moom tout le monde a ay des résultats kooku résultat assuré à 200 pour cent la moom donc d'un coup. kooku moom c'est fini colopathie fonctionnelle ou chronique mais nag boo jëlee garab colopathie dama lay ñaan nag ngay lekk une pomme verte au réveil à jeun quoi. Mm-hmm. comme ça nga gën a oyofal sa biir. mais ne recommence pas tes mêmes bêtises wala nga lekk pomme au réveil et chaque guddi aussi booy tëdd nga lekk benn carotte nga xolli benn carotte nga lekk tu n'auras plus de problème de ventre. carotte crue quoi. waaw mm-hmm. nit biiram la. biir bi ni mu tilimee lay indi hémorroïde biir bi ni mu tilimee ndigg bi di métti tànk di tànk ci suuf bët yi di lëndëm bopp di métti loolu mooy colopathie après day indi hémorroïde yaa ngi may mhm. loolu mooy indi sexe awra di duggaat di dellu loolu mooy indi impuissance sexuelle surtout hémorroïde bi bu boolaat siti bi mhm. moo tax mënoo am hémorroïde am siti ñëw ci man di ma naan jox ma garabu ngóora ma ma jox la doo gis résultat fajal d'abord hémorroïde ak siti ba pare hmm. les antécédents nga doog a faj ngóora <laughs> damay faral di dégg sax boo boo amee boo toogee ku fi toog nga wàll ko xool ma yëfu bet yooyu ku fi ci toog nga wàll ko xool yëfu yëfu kon feebaru biir la biir bu tilim raxasal sa biir man di tax ma gën a mun a faj sax parce que la plupart ci biir lay jaar man hmm. feebar yu bëri léegi raxas biir bi ni muy indee hémorroïde noonu lay indee fibrome noonu lay indee hernie inguinale noonu lay indee hernie hiatale noonu lay indee ay kyste noonu lay indee trompe bouchée noonu lay indee perte blanche qui pue noonu lay indee sax ñàkk am baneex ci sëy sànq ci siti keroog ci siti bi dama ko fàtte dama leen fàtte wax ne hmm. siti day day tax doo am appétit sexuel wala doo am plaisir ci euh, ci ci rapport sexuel hmm. yaa ngi dégg. donc hémorroïde li muy def lu bon la. hémorroïde day tere nit nelaw. Mm-hmm. ñàkk sommeil tëdd doo nelaw. biir bi bu colopathie wala biir bi bu tilimee doo mën a digérer te nee naa moom mooy indi hémorroïde doo mën a digérer. Mm-hmm. ngay géex lu bari loolu mooy joxe même ulcère biir bu tilim mooy joxe même ulcère moo tax man du ma a faj ulcère sax raxasuma sa biir ulcère quatre semaines laa koy faj alors que tubaab. danañ wax ay garab nga màcc ba ilaa yow mi diin doo wér tukulóor nag ñu naan ba doon dee bernde xol fii fii du xol sama mbokk tukulóor fii wanaa bernde fii ulcère d'estomac la bernde fii la fii bu mettee day jam fii fii ulcère la bu demee ba góom bi yaatu day jam ci ginnaaw fii gaawal nga faju surtout yow mi bu dee góor nga sinon da lay rey dafa gaaw a rey man sama rakk bu góor dee na ci bu doon tukkee Amérique mhm. ca la may naan sama benn doom ma ne ko gis nga li ma dàq faj ci adduna bi mooy biir mooy rek sama suñu famille mais xam nga ñu ne prophète chez soi mhm. ñu ne prophète chez soi kooku ñoo bokk baay yaa ma ngi fii di faju arthrose xamul ne je suis le meilleur man rek maa ko a faj arthrose bu wér musul ñëw ci man te ay moromam di jógee village di faju arthrose ñuy wér mais yéene wu ma jàmm ji ko <laughs> c'est grave le peuple africain. Hmm. man j'ai pas peur de may mots. c'est que mënuñ imaginer yàlla may na ma c'est pourquoi le blanc dit nul n'est prophète chez soi c'est pourquoi d'ailleurs Cheikh Omar Foutiyou Tall radiyallahu taala anhu mu ni pere ndarjon tukkil jógil fi nga nekk boo bëggee être populaire wala boo bëggee am am da ngay da ngay wattu say mbokk Mhm. revenant sur hémorroïde pour ma globaliser. ma def synthèse. feebar buy jógee ci biir la ci biir bu tilim. Mhm. mu jox la hémorroïde u interne ou externe ou caché ou xaw ma koy woowee déjà booy tayal yaram bi di diis euh, nga mel ni ku ñu liggéey. Mhm. hémorroïde la rek. bu feeñee ci anus bi bu feeñu ci anus bi yëpp jóge rek nga faj hémorroïde. yaram bi di tàng. mbaq bi mbagg bi sax di diis ndigg bi di metti tout le temps am na ñoo xamante ne dañuy faju ndigg bu metti depuis dix ans di naan garab ndigg bu metti wala garab courbature fekk amuñu ndigg bu metti hémorroïde mooy metti ndigg bi hmm, wala waaw wala colopathie boo ko amee da nga da nga am méttitu biir wax hémorroïde waxoo colopathie hmm. colopathie mooy indi hémorroïde mooy indi bi mooy indi faiblesse sexuelle bi mooy indi tànk yu tàng mooy indi bët yu lëndëm mooy indi bopp bu metti mooy indi ulcère mooy indi reflux gastrique mooy indi mauvaise haleine mauvaise tu tubaab mënu ko faj mhm. man je traite ça deux semaines maximum trois semaines parce que ci biir bi ci mbaq bi lay jaar damay raxas d'abord biir bi doog faj mauvaise haleine bi ah. comprendre nga d'accord mais nag boo dee am nga raxas nga biir bi hémorroïde interne sax mun na xas mun na xasaw la gémmiñ boo amee hémorroïde interne boo naanee garab halitose bi boo boo wér rek xam ne da am hémorroïde wala sinusite intense nga am te nga ko donc fajal hémorroïde faj siti faj haliteuse mhm. nga bañ a nay d'accord paj bi boo ko bëggee mhm. euh, ci nu mu lay dikkee ñaata lay dikkee colopathie quinze mille la garab raxas biir bi quinze mille boobu moom nit ñi dañ ko jël ko mburu mhm. da ngay ñëw gis ku jël vingt sachet dem raxas biir bi ku kër mi xam nga biir boo koy raxas kenn du feebar y famille des familles ils sont maladives ils sont vraiment elles sont vraiment maladives nañu raxas seen biir rek. xam nga maa ngi doon wax euh, émission bële affaire city mm-hmm. est-ce que xam nga city boo ko amee doo doo wér ci drapano AS wala SS man dama koy faj AS 4 mois nga wér SS nga xam ne tubaab dañu naan doo mës a man 5 à 6 mois nga wér. mais bu jël drapano SS. je peux te donner des numéros de téléphone sax 6 mois. 3 mois lañ jël sax gisatuma leen rendez-vous. loolu nit ñi war na ko xale yi ci loru bëri nañ. de la man don la don don don de Dieu la barke Sidna Mohamed. man ma damay toog naan mais où est-ce que j'ai pris ça. fan la c'est quoi. sa vient d'où. barke alxuraan. xam nga man yàgg naa wax. te les gens ont vu que je suis toujours comme ça. du changé wax. te ba léegi musul macha allah je touche du bois kenn musul dégg lu ñëw ci man te doo ko gis man damaa nammul dara di mhm. man damaa suur damaa regg doog ut xaalis damaa regg ba pare doog ut xaalis d'accord man soxlatuma sa xaalis mhm. j'en ai plus besoin j'ai tout lépp lu doomu aadama di ñaan yàlla am naa ci ba bëri ba ma doyal xamal la sam borom ñaa lan la ma desal mm. gudd fan man ak wér jeex na parfois nag damay naan man je nit mënul am li yëpp quoi mais ah, ñëpp ak may wax dëgg yàlla ñëpp ak may ñaanal gudd moom wax dëgg yàlla te yor naa ay secret yaa aaxiru boo koy def cent fois hmm. baadal isha yi ginnaaw bi nga jullee gee di nga gudd fan yaa daa imu boo koy def cent quatre fois boo jullee gee di gudd fan hmm. maa ngi ci fa euh, timis aussi am na looy def ci bopp bi quatre fois. day mhm. gudd fan te maa ngi ci man dèjà dee naa ba pare dee naa ñaari yoon ñetteel bi moo ma dese dee na mooy dee naa dem dellu naa ci yàlla muutu gam lantu muutu def fana fanaaw ba pare àgg naa yàlla xam naa yàlla dee naa mooy suñu accident cinq avril bi ñëpp dee woon presque yàlla sauvé ma. Mhm. donc je suis un revenant. d' accord hémorroïde bi wax nga. c' est 15 000 et raxas biir bi quinze mille émori trente mille amul kenn ku ko gën a yombee nii te nga wér mhm. ci trois semaines boo wérul rek yaa jël yaa jële sa garab ne ko war a jëlee donc foog ñu ñu déglu digle yi oui et puis désormais dootuma dootuma nangu ñuy woo secrétaire yi pour di laaj explication garab c'est écrit à la porte même fi leen di expliquer garab yi c'est écrit en haut en face de vous franchement boo boo xëyee fajaru ci nit nga ñëw nga fay sa xaalis. Mm. magum jëmm nga jël say garab war nga déglu explication yaa xayti. d' accord ku bëgg a faju docteur nu muy def fu muy ñëw ak ban numéro la mën a jotee. Petit Mbao léegi moom xam naa léegi moom populaire naa macha allah. Mm. Jalla moom léegi ñëpp ko xam. Mm. <laughs> Euh, maa ngi Petit Mbao entre Petit Mbao am na kalando kalando boo jël nga ne kër docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi. Sénégal seet mbokk yi jërë ngeen jëf ci teewaay bi ñu jaajëfal leen bu baax. jotaay bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu wér yaram fii ci seen site de référence ñu faral di ci ànd ak ki nga xam ne mooy docteur Abdoulaye jàlloo di naturopathe émission bi weesu nag jot nañu waxtaane lu jëm ci wàllu hémorroïde bi la yoon nag dañuy waxtaane lu jëm ci li nga xam ni mooy euh, hémorroïde city city lañ waxtaanee sànq. city lañ waxtaanee ak hépatite euh, ci yeneen émission yi je crois bi hémorroïde lañ war a waxtaanee. ya je reprends baal ma de. parce que yaa ngi ci téléphone. Hmm?